ñoom ñaar na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen sant di leen gërëm yéen internet yi leen ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina seen émission bu mag boobu di Leewtoo ak mbër Leewtoo ak mbër dinaa ne ma fekk champion fu mu nekk daal toog waxtaan ak moom dañoo ñëw tey fii Géejawaay fekk beneen champion beneen daanaan xale bi nga xamante ni boo ko tuddee ci làmb loxo dar gémbe ñi naan ëppataloo kooku mooy kan l'enfant de Guédiawaye xale bi nga xam ne moo jommal xale yi joomal mag yi di guy gi maa ngi lay nuyu waaw maa lay fay soxna si di wax ni auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli cant bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu suma sëriñ Sidia Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yà di jaale sama xalifa général Baye Abdourahmane Seck yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di ñaanal sama maam maam ma Mati Diagne sama albisan daal yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di ñaanal Baye Assec yàlla na yàlla olofa yéen bi di jaale xalifa Baye Fall yëpp euh, xalifa Baye Fall bi fi jógee démb di ñaanal tamit euh, waa Laayeen seen xalifa yàlla na ko ak waa Saalek yëpp di jaale àdduna di jaale Sénégal di nuyu sama yaay Wara Sarr suma grand frère Modou suma grand nas di nuyu sama Wara Sarr bu baax a baax a baax ak une fois suma yaay la suma xarit la di nuyu tamit xam ne ñi ngay ñoo waay géejawaay gi yëpp bàyyi ma kenn nuyu sama grand frère Balla Niang Seydou Mame Diarra sama xarit la sama nit la sama conseiller la nuyu tamit sëñ bi sëñ daam sama xarit xaritu Balla parce que ñun ñoo bokk di toogandoo di defandoo di waxandoo bu ñu amee combat bu ñu amul combat heure bi waroon na fekk bu yàgg parce que man dama toog fenn rek laay toog fii laay defee lép mooy suma lépp kon defe naan tey bu ma ay nit seet see tey bëgg waxtaan ñu jël air normal kon dañuy ñëw toog waxtaan ak moom sottante te xalaat di nuyu États-Unis bu baax na ma jógee sama coach boo xam nga maman daam yambulaay ak sama ñetti entraîneur yi ma jëloon pour ci combat far combat ak avorté mais incha allah ci kanam far combat bi avorté combat amul ci kanam bu ñu yaatale di ñu ci dégg lu bari nuyu sama xarit Dere Sarr quoi ak papaam Hamadi Sarr waa Aseg naa gi yëpp sama soxna bee bi sons yooyu di la nuyu di la fay xam naa moom tey bu ñu defoon émission da nga may dër benn non dañuy dem bu police gan moo tax ma dagg li ma doon def lépp uh-huh. maa ngi woon yoon mais maa xalaat sax di nga ma waa dooma jot nga def damaa fay sama téléphone uh-huh. te comme samay kàddu man naa ñëw rek jël suñu benn 15 minutes comme ni nga ko bëggee rek. Mhm. question réponse di wax daal yàlla na yàlla suturaal ñu wax fi loo xam ne du ñu fi xeebee quoi. Mhm. Mhm. Ami noona dama bëgg naa ba ba nuyoo guy gi rek champion bi damay nuyu grand bala ah, moom fekk mu daal dañuy dalal. vraiment Seydou Mame Diarra ah kon Seydou Mame Diarra bu soo VIP borom Porokhane ah, di ko bëggee bu baax a baax kontaan nañ ci moom loolu waaye guy gi bu ñu waxtaan moom rek dañuy balaa ñu waaw sama carrière laa li ma ci gën a ne au passage nuyu sama idole saa Kajoor au passage Espagne di ñaan yàlla yàlla wër fëgg fëgg bopp bi sama carrière làmb li ma ci gën a neex bari na parce que mbër laa boo xam dañu woon du dem du avancé du pousse mètre te chaque jour bu ma bëree rek loxo dal gémmiñ chaque jour bu ma joxee ndaanaan ma daan ko di nuyu waa Thiès bu baax ku ci mel ni Pape Doumbia vraiment ak ñoom xaar ñoom defal nañ ma papat boo xam ne quatre ans mënumaa daanu Thiès xaar euh, kii ak Baye Zall quatre ans yoo xam ne wax dëgg yàlla bëri naa ko Thiès ay champion la fa doon dajal nag du ma tudd tur dem naa Palmarin Joal Diofior Dionewar dem na équipe nationale tamit kon cuuna du dem équipe nationale bëri Mbappa tamit fu ne drapeau bu ne jël naa ko sama benn turando au passage maa ngi ko nuyu Xaadim Mbay lalam bi mu doon tëgg lal lal boobu amul laa samay drapeau mu nekk matelas bi hmm? wallahi wal azim macha allah man def naa mbappat def naa li ma ci gën a neex bëri na mais am na yoon du ma toog di leen tudd naan daan naa leen yooyu parce que loolu mi sama ginnaaw quoi def naa mbappat daal xam nañ ko hmm. def naa waaw dem naa mbappat bu ne jël naa ko dëkk boo xalaat nag waaw dëkk boo xalaat dem naa mbappat bi ma gën a marqué moom Euh, mbappatu ci kii bi la ci kii. Mhm. mbëru dëkk bi laa daan gars yi bëgg maa rey. <laughs> noo def dama ko yenn deux fois ci suuf gars yi na ma doon ma jàpp tàng bi suuf yëkkati ko ba ñu koy jëmbat ko au maa ngi koy daan de boobu boobu lu nekk sama kanam laa tura tracé dama lay tracé du yàgg mhm. war na yàlla nga dugg ci làmb nag def parcours bu rafet macha allah mhm. ban combat moo la gën a neex sa combat arène sama combat ak Ama Baldé 2012. lu waral combat bi gën ne heure bii la làmb ji booy yaa ngi police ñee ngi police ñee jàpp nañ leen. lu tax xeex bu métti. kenn ku daan Ama Baldé daan. Mhm. nit ñaa seen combat boobu bu nekkoon combat bu métti. mais dañoo bàyyi ba timis ci timis la xam ne man damay daan combat bi. Mhm. ay timis laa ñëw nas fekk ma ci biir xam nas dafa ma rus. fekk ma ci biir rek may wax ak nit ñi mu ne saa waay dugal ci biir waaye bul sàggee na suñu combat bi. Mhm. ma waat ne Seexu Tijaan suba dama ko humilier. bi ma tëddee dama doon xotti matelas bi. boobu li muy sentir maa ko xam. Mm-hmm. parce que dañuy jaawale nit ak fit ak nit ak fugg. Mm-hmm. man damaa boole ñaar fugg ak fit gëm ko nag donn moo ko fenn pour ay xam nga nit da ngay àbb fit man àbb moo ko sama mam moo demoon Samba Sadio deret boobu mooy daw sama yaram bis boo ko yeeyee. di nga bëgg mu tëdd waaw du yee du kii noonu noonu laa mel ci làmb nag. Mm-hmm. ñu dem biñ demee man xam naa ne tey biñ laalantee. xam nga nit bala nga naan nit ña bala nga naan nit kii góor bala ma yóbbu moromu góoram ñu laale mhm. waaw bi ñu laalantee ma dégg dënn bi riir ci laa ko téye dur ko gauche droite yëkkati public bi benn loxo wala leen kii dama koy daan parce que li fi nekk mënuma tenir mhm. boo seetloo làmb ji noonu la demee mu ko jàpp yëkkati public bi benn loxo ñu naan kii lu muy def sama benn xanaa kii day xaru xan léeg-léeg la lu muy def non du xaru de mhm. man tey bu ma leen nit ki tey man dinaa xam ba xam lan laa fekk parce que man damay entraîné comme yow ma la téye bu baaxee xam naa baaxul xam naa ma ne léegi nga gis góor laa na tey combat bi yàqu ci kële muy daw ak lu ma def ko parce que xam ne ni mënu fee génn tey mm-hmm. sinon ñu humilier ko contre Tafatine contre Tafatine bi may bëre ak moom indiwuma dara mm-hmm. bëri naa moom minute yu bëri parce que loolu kenn mosu ko bëri ak Tafatine mm-hmm. minute yu bëri man booy seet maa ko yóbbu ardo mais bi mu nee ma xam ne sama sama physique mënatuma ma dem dama ko ne daan na mu jeex daan wallahi damaa ñëw ne ko jaaral fii mu jaar fii kalma toog ma ne ko merci champion dem génn parce que tamit sama moo faaw nga uh-huh. ko xam loo xam waaw ci nga dem ci nga dem combat yóbbu xam ne nii yaa ëpp sa adversaire doole nga demaat combat yóbbu xam ne li nga yóbbu nii daanu sa adversaire boo delluwaat sa kër jàngat da nga ci jàngat si ñaari combat yooyu noonu dem entraîné waat rek nit ki li ngay li lay may uh-huh. yow xam nga ko muy man muy yow muy keneen uh-huh. man loolu tubaab bi naan loolu tubaab bi naan joue pas droit erreur amul droit defati erreur ci làmb joue droit erreur amul droit defati erreur moo tax lépp lu may may doole lu may may physique lu may may ma jàpp ci combat ba samay supporter ndam yàlla moo ko moom man moom man ndam su ma xamoon fi mu nekk du ma du ma dem fenn damay toog dem jëli ko mhm. mais dinaa def li war ci man ba boo ma gisee di nga xam ni kii y'a quelque chose mhm. mais di yor benn poids boo xam ne cent cinquante kilos yoo xam ne sa bopp dara bopp moo gën mhm. man léegi noonu laay doxee poids bi bëri bëriwul physique bi cardio bi doole ji intérieur man moo may gënal. ci loolu guy gi anecdote boo xamante ne ci làmb dal na la heure boo toogee xalaat ko dalay def ay ree lan la. anecdote comme. anecdote loo loo doo dund ci làmb rek ci làmb ji rek. waaw man moom man moom bi maanaam dund li ma gën a dund lu metti mu ëpp quoi. parce que école bii ma nekk tey maa ngi fàttaliku Eumeu Sène junior mi ngi ko doon fàttaliku barki démb am na benn ñuy joxee ay tiset romb ma daanaka kii du mbër ma waat ne leen maa fi dugal ay blouson mhm. gëmuñu ko. bu daan dem làmb sax ni pour duñ ma convoqué fay naa xaalis ba taay di neex la pour ñu convoqué man man naa def star rek ñu ne ma du wër na yàlla <laughs> dama daan togg ay añ war a dem mbapat ñu war a bëree mbapat kenn du fa ñëw mujj gi ma woo Mor Faram ne bu fekkee bokkutuma ci école bi nga wax ma ma génn mi ngi ci dëgg maa ngi fenn au oh, passage yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana mhm. du nuyu sama papa Baye Diaw Dul Diaw parcelle nuyu ak doomam Modou Lo ñoom Baye ñëpp waa parcelle mhm. mbay Dul jàppale waa kër Mor Faram bu baax ba ba mu génn àdduna kon mhm. buñ ci rek suñu xel dem ci dañ koy ñaanal yàlla ma ñëw ne ko léegi man bàyyil ma génn saako yor mi tey ma dem jël samay këyit ne ko may dem école Balla Gaye bàyyi naa école bi. bëggoon tuxu parce que su may bëri kenn du ñëw taman mbër laa barki dem rek maa ngi ci waxtaan ak saako yor mu ne ma noo mbër toogal man dama déggal saako yor ma toog mais lu ci bëri lu ma am ndax naqar mu ëpp li mu am ay bànneex ci ci ci làmb ji. man dama lay am lu war a fàcc sa diggante ak Zos combat bi nga ñëw war a bëri ak Zos sa loxo ba dam loolu noo ko. non boobu gar loolu garaawul parce que boobu ma naan Zos lu loolu mu entraîné du dam dañu ko débat ma sa baaram moom la. comme ça gis nga fii. ah ay ay bu ko defee noonu de. voilà ne kat. du <laughs> dam foofu du dam dañ ko mm. déboîter. parce que doo ko entraîner. Mm. léegi nag loolu mu indoon problème bi. mais Zoss sama grand frère vraiment muy ko am maa ngi koy saluer kuy neexal làmb loolu dafa bokk ci làmb quoi mm-hmm. Zoss ak Gouye Gui lañ mm-hmm. ko ngóobaan ñuy daje di xeex ak xam nga yooyu ah, waaw yooyu dafa maa ngi ci mm-hmm. nga mais du loo xam ne tamit ku mesan la waaw ku mesan la te euh, sunu làmb ñun ñaar lépp lu ma defoon rek bu mujj bi fayee ko <laughs> moo tax xam nga <laughs> yaa ngi ama dugg Zoss quoi te xam nga rek Zoss moom xam nga vraiment nit nit ku bokk la ci bokk la ci làmb daal nga dugg ci làmb am ci ay bés yu neex am ci ay bés yu naqari toog des fois mu metti lool est-ce que mës nga toog ba regretté tax nga dugg ci làmb non yàlla tere làmb li ma am tey moo ma ko may je parte voyager de tout le pays ah. moi je respecte beaucoup de tout le pays ñëpp a ma respecté làmb ma ko may amul lu ma ciy rëccu xanaa kay man maa desee làmb mais làmb dese lu ma maa desee làmb mais làmb dese lu ma làmb yóbbu na ma fu ne defal na ma lu ne may na ma teraanga. macha allah tous de ba ana bal ana bois amul bois. alko bois alma benn kër muumaane wala bila alal ma kii bois jël naa bois waaw tout de bois. allah jabar ji gën a nekk ci àdd gën a ci àdduna maa ko yor. da ngay tax deux ans wala yaa ngi dégg ah. jabar ji gën a rafet ci àdduna maa ko yor. bësal bi sama jàll ñu waxtaan. ji gën a rafet ci àdduna maa ko ma de. Mm-hmm. te it allah maa ngi tëdd sama fii foo xam ni gis nga balla ñaari kilim la ci dóoral. jàmm laa pee yaa ngi bi ne ak yeneen yeneen. kon sant yàlla. duñu waxtaan ak guy lamb moo may loolu lépp. lamb la ko may macha allah yàlla yokk kon léegi droit droit erreur. Ah, foo dem ñu respecté la. guy gi yàlla yokk duñu wax ak guy gi bu nekk xale doomu géejawaay. Mhm. te li xew géejawaay duñ ci waxtaan ak moom ñu gis barki démb Ndiaye Lac de Guiers numéro 2 di tudd doomam. gisuñu Balla Gaye gisuñu saa Thiès polémique am ku nekk naan jàppal fii jàppal fee en tant que xale ndaw nga nekk géejawaay te dégg sa kàddu nga ne yow yaay jug boolewaat géejawaay te 100 pour cent géejawaay 100 pour cent sax laay wax ci ah. géejuwaay lañ ko njëkk a déggee ci man la commencé merci ñu dem ba léegi ñu naan ndax loolu dëgg la wala lu dëgg wala léegi ay la woon ma gàttalal la coow li fi amoon lépp man la léegi coow lépp man fay naaw ñun ñëpp ñu ngi ci waat jàmm pour ma gàttalal rek jàmm laa pee léegi déggoo mosuñoo am sax histoire maa ngi déglu benn bis ñu naan guy gi Balla Gaye histoire sama ngénte général bu Malika ak ak ak ak ak kii général Malika ak ak ak ak Sa Thiès ñoo wàcc sama jabar mais Sa moom tey bu fekkoon tey mag Balla Gaye dañoo jot est-ce ko fa gis. déedéet Sa Thiès ñàkkul ma fay rek ku respecté Balla Gaye la mm-hmm. kilifaam la. Mm-hmm. kon loolu rek exemple la mais gars yi ñooy bëgg a jël comme ça yow mii tey wax laaj ma ci Balla Gaye mm-hmm. ma wax ci tuuti rek nga dem dagg ko Instagram bi rek def photo ga Balla Gaye titre daal di guy gi classe Balla Gaye rek mu commencé. lu ëpp nag yéen la. war na yàlla mais amuñu problème. Balla Gaye bien la da ngeen xër Sa Thiès Alioune Seye ñëpp mais gars yi ñooy jël bëgg a séparer kër yi non non te ji boo ñu fekkoon maag moom ñu taxaw fii da nga naan nii du ñaar ñi la ñuy wax de mhm. wër na yàlla Lac de Guiers moom waxaale wuñu ko mhm. man moom lu ma ne man nag man mu takk jabar ma neex laa koy wax yaa ko yaa ko boosté sax boosté ma ko de <laughs> damaa ñëw mhm. ñoom bégaay ñëpp neen la dëggee sam day takk jabar kër gi fees del joolaay ñëw commencé kii yooyu seen riitu yooyu xool jàkka ji kër gi fees del yoroo ko jàkka ji fi ñu war a mayee <laughs> mais bi ma wooyee keroog bi ma daggee saagal lat musuma xam laa mel noonu la ñaawee wër na Rasulullah sama nopp yi di riir hmm. mais nag loolu sant yàlla parce que amitié la bu ñu amoon man ak moom. Hmm. semaine lañ ci teg rek mu takk jabar. Hmm. léegi Alioune moo des moom laa ko war a defar. Alioune Seye faa mu takk de Alioune Seye junior 2 2 kon instant bi mën nañ mën nañ jàpp ne 100% Guédiawaye bi prochain combat dinañ ko gisaat mu daal di fësal la meloon. non yow amuñu problème boobu noonu. ñu andi entraîné ñu andi def lépp ñu andi waxtaan ñu andi def lépp ñu andi bokk ay tey jii man la koo jàpp ni moom laa gën a am lépp ma la man man man maa coow li ci gàttal la quoi dindal ne la ñoom ñëpp defuñu dara man maa doon def lépp mhm. léegi xam nga rek man maa ngi ci tëdd gars yi jaar sama kaw nangu naa loolu waaw nangu naa loolu tëdd ñu jaar sama kaw soo bëggee doon ba xam ne da ngay nanga doon la moo tax daal moo tax daal laa doon nii d'accord dégg damaa weef toll guy gi la ñuy wax duñu wax ak guy gi te duñu wax combat bi mag bi mu am hmm? bala ci ak rëg-rëg hmm? doo ci waxati rëg-rëg waaw non rëg dafa am rëg-rëg <laughs> mooy rëg-rëg bu ñaam mari jaranam xuppa jaam loolu te théâtre la suñu papa ko yàlla moo loolu théâtre la moom hmm. loolu moom rëg-rëg mbër wax champion du simple champion en MMA kooku laay wax rëg-rëg sa adversaire hmm. waaw loolu moom kenn kenn bañalu ko international la fi mu hmm. euh, man nangu naa ko ndax champion la champion mooy nangul morom champion champion mais nag day dajal champion futur champion tamit parce que man dama bañ injustice ci nit nga ni kii tey dama ko humilier wala maa ko mën mhm. te laaloo goo leen ki jox ko cëram rek mhm. yàlla mi ko fa wàccee am na lu mu def ci moom mhm. bu ko nee duut mu yeewu rek bul xam yow nan nga koy tërniree lan moo doyoo nga jàpp ne rëg-rëg nawloo la non nawloo ma dañ koy déglu ci ay waxam ci ay jëfinam ci ay entraînement fii lu nit wax boo xëyee suba mu financé man sama kër lépp lu ma fa def ak sama njaboot bi fanaan na sama adversaire munul ñàkk dafa ñoo xam senn spécial seen seen deret la senn dañuy senn munul ñàkk mais est ce que loolu baax na ñiy yóbbu peut être. ki yóbbu moo lay indil waaw moo tax man du ma nangu di waxtaan kenn ci lu bari. Mhm. bala mi xam na li may wax du waxtaan ak kenn ci lu bari. parce que dama am ay faay amaat ci ay faay sama diggante saako yor looloo ko doon yàq. Mhm. moom xam na man xam naa. par par tamit moom dafa neex a comprendre nit. Mhm. ndeysaan nag ñi waxtaan keroog mun a defante ma <laughs> damay defante waaye. ñaar kan moo la du defante. <laughs> mais xam nañ man damay defante moo xam na loolu. mais euh, nañ ñaan yàlla yàlla lafal ñu cat. Reug Reug fi mu nàkkee sens mooy bi saako yor duggee ci combat bi. Mhm. la muy signalé la lay signalé. guy gi nañ dem bu bu sama liggéey waaye. <laughs> <laughs> baal ma kii baal ma kii muy def lu ko neex. <laughs> saako yor euh, bi mu duggee ci combat bi la Reug Reug ñàkk sens. Mhm. ak retour de Baye Diaw. Mhm. la grande marabout de guy gi pour derrière pour toi. ci loolu la ñuy ñëw. nga ne combat bi ku dàq xeex. ku dàq bëre ku dàq jàpp sa morom te sa morom du mën a génn yàlla na ku gën a dis loxo ku gën a dis loxo macha allah tous de bois bàyyi nii ku gën a dis sa loxo rek dóor sa bois bi de man lay dural moom moo tax mu baax bois bu dis baaxul da lay diisal da lay diisal loolu guy gi waaw mais dañoo jël lépp jox ko ah, lépp jàpp na yow ci loolu yëpp yaa yaa ci mën rëg-rëg non non waxu mystique moom waxuma ko mais wàllum cadre entraînement wàllum mbirum li ñu war a duglu nii dama koy teel wax ne man pare naa rek mm. li des ñu bàyyi ci loxo yàlla su arbitre sifflé ni muy def gars yi man na ma ko def rek. ñu gis naa xeeb rëg rëg. suñu xeeb moo ko def moom moo ma xeeb bu indi politiquement moom moo ma xeeb. non rëg rëg moo doon wax mais. après léegi yaay wax ma tontu ko bi maanaam moom ay audio wax. damay dóor damay humilier bu doon combat bi nii dañu fay Sa Thiès 15 millions Serigne mu def ko ci mais man 5 millions kon loolu humiliation la. kon da daal jaral na ko ko du saagin sax Sa Thiès mën naa ko tudd parce que suma rakk la mhm. te it ku ma respecté la saa mhm. du ma gis mukk du ma jox ñaari loxo wala du sëgg nuyu ma mhm. fu ma toog dama koy wax kon kooku tey mën naa jël ci ma exemple loolu rek la moo tax ma ciy wax ne Sa Thiès nangam nangam mais du exemple boo xam ne war naa ko jël pour làmb ji non am na sama rakk la am naa droit wax beneen bi mooy dafa def audio yoo xam ne neen dama doon oos oos xam nga oos jën yi pour ñu ñëw nee na oos na ma mais jën bi mu jàpp jën bi doo koy fot lébu du jën yëpp lañuy lekk hmm. ay jën bi ci ba mu dul lekk la mu juum mu ñëw daa juum mbaadu xamoo tey bu fekkoon tey jën dafa yéene moroomu jënam rek jàmm hmm. kon duy jël jël oos mu dem jën lekk ko mu ñëw ñu ray ko ci kii bi ci tefes gi nit ñi di ko jariñoo kon ko jàmm hmm. kon jën bi mu jël nag yéenoo ko jàmm baaxul ci moom xam na loolu sax da nga koy topp naa ko poids bi nga indi nii li nga indi nii mënumaa daan lan moo dugub bu doon yéene dugub rek jàmm kon gi tax du xamu dugub. Mhm. bu doon yéene bu doon yéenante wala bokk rek moo yéene jàmm. Mhm. dugub du xam du du du xambu kii eh, gi tax du xambu du xambu suuna. te te lépp dugub la non lépp dugub la. Mhm. mais dugub bi lañ jël taal ko pour mën a ñoral bële. bu doon yéenante nañ jàmm danaan noo mukk. sama deret la. loolu rek exemple la ci moom comprendre gul. la li la gën a jege moo lay rey. damay sangu yéeg wàcc moom mu sangu. ma. damay sangu. ci Dakar gi. ci guy gi mu yéeg wàcc man ma sangu wala moom mu sangu man ma ñëw ay minutes mu sangu. ñaar mbaa boo xoolee fa doon tase boo xoolee ay ruq. ay ruq ay ruq ruq sax kay. Hmm? rëg rëg dafa day sax de rek rëg. waaw non loolu moom dañ ko koy nangul. Hmm. vraiment tamit muy cadre boo xam ne mosuma dépasse ci làmb sax jour wax ko. Hmm. dina wax nii rek quoi. mais li may wax lépp ci làmb la bis bu ma dépassé woon dinaa nekk di ratatati comme métti nit ñi dama dégg mhm. mais li tamit même ma ko mhm. làmb la daal incha ñun ñaar ñëpp dañu dëggal suñu bopp man mosuma wax ak signature nit mhm. li ma defuma ko xanaa kay dañ naan dof bi yàq na làmbam dafa ëppal te bii incha allah buñ suulee tànk yi bu suulee tànk yi moom defe naa ni moom combat MMA ngay gis. lan lan la ko indee xeex wala bëre bi. lépp laa liggéey du ma toog nag nii laa ko liggéey mais lépp moi j'ai pare tout man man bu ma ko mayee deux minutes rek dem naa. 2000 rek dem na guy gi rek yóbbu ko 2 janvier 2022. date boobu arrangé na la soriwul noonu. sori na soriwul. Hmm. sori na ci kaw financement bi soriwul ci kaw préparation bi. Hmm. parce que mën na def trois séances boole ko musculation boxe sa cardio bi nga koy defar tey ak dem diine hmm. dina baax ci benn côté bi quoi. mais pour financement bi passé nii au passage du nuyu sama benn grand Malick Gakou combat bi yéexoon naa taxaw métti woon na. mais moom da cee jàpp li desoon moo mottali ko ne garaaw dina ko gérer. Mhm. kon kooku fu ñu toog war nañu koo leeral di ko gërëm ci geste boobu mu def mënoon ni euh, waa kii ñoo ko tëgg rek nañ def seen combat bopp mhm. mhm. sax des fois kenn toog am nañ am nañ Malick Gakou wala amuñu Malick yooyu exemple boobu macha allah kii bu baax la mook maa tamit Cissé waa GFM entertainment vraiment ñu def nañ ci am solo ñoom tamit avant ñu koy décroché daal métti woon na mais du métti dara lu ñëpp bëggoon la rek te combat boo xam ne c'est le nit ñoo ko bëgg booy bi wooy nañ ko fi ma leen boo ko jëlul nii boo demee ci koom day gën a métti nañ ma ko jox ma defaral ko après man demaan mu topp sama ginnaaw rek préparation bi ñaari séquence d'entraînement def par jour instant yi benn laay def parce que fan yi dama xawoon tooy quoi dama xawoon tooy tooy bu métti toog naa deux semaines entraîné ma presque tooy bu métti kay man kay damaa defoon sax damaa corona après ñu defal ma test ñaari yoon ma leen defal leen test <laughs> wóoloo sa boobu ñu def test bi rek après mu positif kay gars ma leen hmm. corona kon jàmm am am waaw positif waaw boolu négatif waaw a ma loolu na leer bala ñoo kuy tiktok loolu da nga ko yàq mooy am nga <laughs> non non négatif kon ma négatif voilà ma négatif nekk ci jàmm nag waaj na ma médecin bi seex sama médecin maa nuyu baax moom tamit sampal ma bidéel yu bari wër na yàlla sama yaram bi ba pare sa combat boo mi ngi may woo rek. Mm. léegi ma dem États-Unis xam naa boo moytul semaine bii di ma dégg ne dem na combat moo laaj loolu. Mourou Mané man ci valise bi lañ may def. non yow dama go yow yaay yaa yor ji. ba pare ba soo bëggee dem dem loolu dara. <laughs> kon baax na mu ngi doon ah, guy gi dañ koy kontaanee bu baax a baax ah, ci Leewtoo ak su koy tàggatoo ak lan sa wax sa dernier mot. looy wax sa. sa dernier moom sama dernier moom ci émission bi. sama dernier moom mooy lool rek di wax ni kontaan naa ci Leewtoo TV. yow moom tey boo ma jëloon comme li nga waxoon rek dañuy àtte ji police ak mm. yooyu moo tax xam ñu bàyyi lépp jox la li nga moom mm. tey di di di nuyu maaw di ko gërëm ci yombal bi mu lombal si di jël ñu quoi mm, parce que tamit loolu tamit am na ci solo mm-hmm. ku tëgg salaam existe li yëpp rek da nangu moom mu def ko mais comme que yéen ñëw ngeen mu nangu leen ko rek di ko mm-hmm. gërëm waa GM entertainment yëpp mm-hmm. nuyu waa TFM gi yëpp vraiment ñoom tamit su may xarit ko ci mel ni ndax ni muy waxee dem ci gis sama boobu mhm. en tout daal maa ngi naan maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax bi mu ñu fi bàyyiwaatee ba affaire bi ñu ni affaire bi defe naa dem na de corona bi loolu la ñu wax waaw dem na ba affaire bi dem mhm. ñu ubbiwaat suñu làmb ji nii mhm. kon defe naa nañ gisaat loo xam ne 2021 bi 2022 bi retour de guy bi Kamine Faye bu bees pull Kamine Faye loolu anglais mooy guy gi safara Kamine Faye yeah loolu anglais la quoi bu fekkee soroo ci anglais bi di nuyu sama yaay sama papa sama yaay nas ku ci mel ni Mambay Paris ñanga waa Kër Barsar gi yëpp nuyu naa ñëpp bàyyiwuma kenn sama booy booy bira Paris xam nga sama booy Pape Ndoye ku ci mel ne Pape Ndoye maa ngi koy nuyu di ko ñaana yàlla kom bi yàlla may ko ndam xam nuyu sama waa Gàlle ku ci mel ni Père Mansour xam nga nuyu naa ñëpp moom Marie xam nga ma kenn comme daal sama grand ma bokkal ndoy bàyyi Moodu ma kenn nuyu sama grand frère Balaña mam Seydou mam Diarra borom borom VIP te le tout le pays ah parce que dañ ko koy nangul mm. di nuyu tamit Sila Sila Séré Nabou Diagne maire Yoff sama xarit la ku baax la nuyu sama taw bara nuyu ñi nga xam ne vraiment daal ñooy bëggee guy gi di wan ni guy gi daal mi ngi ci jàmm di entraîné di liggéey loo xam ni rek di liggéey loo xam nii nag bu loxo bi dalee waaji rek. ah loxo bi non non non loo xam bi dalee waaji rek. dem teel rek rek baax nag moom it ku baax la xam moom. déggul anglais you know rek la xam moo tax you know nag you know rek la you know ah ah dégg nga ah you know moom you know gaan bi nag tamit sëñ daam xaritu bala vraiment di ko ñaanal ngénte li mu jóge mhm. yàlla na doom ji am ñam nekk ko xam ni vraiment ku am barke la papaam ak yaayam fekk njëriñ li ba ci kanam kanam nuyu naa ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi surtout diaspora bi ñu leen war di nuyu lañ sit yi booy kii rek ñoo jël seen kër di seetaan mhm. diaspora bi yëpp waa États-Unis bàyyiwuñ kenn ku ci mel ni Ndoye Thiouz Abdou Medina Modou Mamour Sène Yambou Ndiaye Mama Mama Mati xam nga vraiment ñu ngi seetaan ñëpp bàyyiwuñ kenn du nuyu Yaa jii tamit Ndeye Khady mhm. du nuyu Biti du nuyu Boussa Dieng du nuyu bu Dieng Xaarim Dieng Ndeye Khady vraiment nit la koo xam ni ku am jom la bi yaayam génn àdduna bàyyi ko fi def uuf ay rakkam ak yaayam biti uuf ko mu boole wala uuf ay rakkam defe naa ne muy koo xam ni biti suma goro maa ngi koy bu baax di nuyu ndeexaat yaa yaa Fatou ku baax la ngi noonu daal koo xam ni vraiment rêve bi yaayam jëloon jël na ko di ñaan yàlla rek yàlla may ko jëkkër ju jum bëgg ci jamono yi koo xam ne ñoom ñaar déggoon nañ yàgg nañ dina am problème ñoom ñaar léeg-léeg yàlla surtout naa leen bañ nekk ci jàmm ñoom tamit mm. xam nga jamono bee ko laaj di ñëpp di la gërëm yoo tamit di ñaan nga nekk sa site bopp wala sa tele bopp mhm. yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def parce que mhm. tamit booy ñaan dangay ñaan rek yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen mais mënoo xamuñu làmmuñ ban mooy nangu mhm. moo tax nag bu ñu ñaan nañ ci boole ñëpp suñu fexee loo xam daal erreur la ñun dañoo matul c'est pas conscient mais fexe wax nañ loo xam ne jub na suñu borom la di nuyu sa caméraman yi nga àndal ah. jaajëf baamos ba beneen yoon mu ngi noonu nag guy gi woon ah le roi du simple dama koy bëggee bu baax a baax di ko kontaane comme ni nga ko waxee tey moom bu ma la gisul woon raag lay nekk maa ngi yow ba ah? eh, koy bëggee bu baax moom sama xaritu bopp di ko a la ah, ah, waaye cant ak ngërëm ñeel na waa Leewtoo TV sama équipe bu ñaawul mm. ci yow dundal loo dund doyul waaye dinañ bëgg yéen internet yi kenn du yéen national ak international ndax day Mbacke national la waaye international la mhm. jox leen dig daje beneen yow ak beneen champion ci beneen koñ jaajëf ñaar saa kees xeex ñoom ñaar saa kees ñaar jàpp na ba mot ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na